di télévision bu mag bi nekk ci jumaay Touba ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jiital ci nuyoo boobu ak ziyaar bi sahibul fadilati cheikh Mouhamadin euh, al Muntaxa alxalifatul am di tariqati al muridiya xafizahu llahu wa raahu yal na ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér ba mboolem naal yi nga xam ne sumb ko ci yoon wi yëpp mu àggale ko te ñu ànd koog moom loolu tam lañ koy ñaanale mbooleem njabootu cheikhul xadim gi yëpp ak taalibe yëpp ah, dellusiwaat ak yéen nag ci jataay yi nga xam ne télévision MK TV da leen ko faral di amal di ko ànd ak yéen ci biir at mi waaye ci biir événement yi waaye yi nga xam ne ay jataay lay doon yoo xam ne weer wu jot dañ koy faral di am bii nag bokk ci benn ci jataay yooyu ñu di ko wax yow la kan doonoon émission boo xamante ni dañ ko defoon ngir fàttaliku ak gëstu jaar-jaari ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci jumaay Touba moo xam ay imaam la moo xam ay noddukat la moo xam ñi fi tegoon ñuy saytu jumaa ji ba mboolem koo xam ne rek liggéey na ci jumaa ji dinañ bëgg ñooñu ñu leen di fësal ngir ñu doon ay royukaay waaye itam ñu doon ab soññee ci ndaw ñi nga xam ne dañoo sóobu ci yoonu liggéey Cheikhul Khadim kon MK TV moo dellusiwaat ak yéen nag ci seen émission boobu ñuy wax yow la kan tey nag dëppoo ak dibéer ñaar fukki fan ak juróom-benn ci diggu tabaski atum 1443 dëppoo gi itam 26 juin atum mille 2022 ñu ñëw fii ci jumaay Touba nag fas yéene fee am gan gu màgg koo xam ne ku gan gu gan gu làqu la sax gu màgg màgg waaye gu làqu ndax li muy génn ci ay jataay yu mel nii bariwut waaye nag mu doon koo xam ne ku ñëpp war a xam la xam itam lenn ci ay jaar-jaaram waaye xam itam ay taxawaayam yi nga xam ne moom lay taxaw fii ci jumaay Touba ñu koy wax al imam Serigne Abdou Diop waaw sëriñ Abdou Diop yaakaar naa ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala ci weer ñu bare bari te miin jumaa ji daañu dégg doom ci sëriñ bi nee na nañu séentu weer yi waaye wala sëriñ bi nee na weer yi feeñ na waaye itam yemul ci loolu bis yi nga xam ne ay bisi koor la di bisi koori sunna yoo xam ne yu ñu sunnaal ku ko woor la da ngeen dégg kàddoom tam ci jumaay Touba sëñ Abdou Diop imam moomu tey moom lañ fa yéenee dalal di ko jox kaddu gi rek mu nuyoo ñu soobu ci waxtaan wi al imam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu imaam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm ci jumaay Touba waaye di la dalal jàmm ci jataay bii nga xam ne moom lañu tànn ngir waxtaane ci ñi nga xam ne dañoo jaar ci jumaa ji def ci ay liggéeyu am solo émission bi tudd yow la kan noo gisee boobu jataayu émission asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi waaw ginnaaw bi nu nuyoo euh, ba noppi noo ngi xam le ne jotaay bii de jotaay yu am solo la ndax fàttaliku ñoo xam ne ñu fi romboon la romb fi rombin bu baax moom dana tax ña ña topp ñoom it euh, roy roy gu gu rafet euh, bari na nag yu ma ci masa seetaan yu mel ne sëriñ As Jaxate yi ñu demee noonu yëpp jaa fi waxtaan ak ñoom léegi nag noo ngi sant ci loolu bu baax a baax te xam ne daal mbir la loo xam ne daal lu ma lu mat a saxal la lu mat a topp la. ok ok jërëjëf imam ah. ci kàddu yu nuyoo yu rafet yooyu macha allah waaye fi ñuy njëkkee tàmbalee rek mooy tey bu bëggoon wax kan mooy sëñ Abdou Diop. ci ganek jamonoom ak ay jaar-jaaram ak fu mu jàngeek yooyu loolu ciy tënkal ci baat yu gàtt. waaw loolu de moom xam naa ne mën naa cee wax lu xaw kii waaye nag di jëm ñi. al Abdoul Khadim Diop. nekkoon imaam ci kër sëñ Saliou Mbacké waaw bëgg eh, di doomi Serigne Samba Aminta Diop Serigne Samba Aminta Diop nag ma Samba gàdd ndaag moo ko jur ma Samba gàdd ndaag ndaag moomu ko jur ak xarimaam mi nga xam ne mooy waajuru sëñ Modou Moustapha ak sëñ Baara ñoo bokk ndey ak baay waaw ci wàllug baayam noonu la féete wàllug ndeyam it eh, sëñ eh, soxna Faati Silla moo ko jur. soxna Faati Sylla sëriñ Seer Sylla moo ko jur sëriñ Sylla Seer Sylla sëñ leen mag ma moo ko jur sëñ cumbuleen moomu wax na ne bi sëñ bi dem ci géej gi kaamil ba mu yóbbaale woon moom moo ko bind moom la sëñ bi sëñ Saaliw nag moo ko mujje man mii sax doon dama ko bëgg a wan ba ne man dana la ko wan waaye ginnaaw bi soññu ma ko ci ndax man damaa ñëwuti soññu ëpp sëriñ ba tax loola moo tax gis ga ginnaaw bi yomb maanaam Serigne Touba la ñu tuddee sama baay ñu dem wax al Abdul Xadim yàlla dogal nag Touba gii laa ganee adduna mhm. laa ganee adduna fii ci Touba yàlla dogal na it bi ma matee dal jàngit maa ngi jànge kër sëñ Mat Jaañ mii nekkoon daaray Kamil mhm. ci fu ñuy wax dëkk bu ñuy wax yaaween foofu laa jàngee alxuraan eh, ginnaaw alxuraan ji nag bi ma ñëwee Touba moom maa ngi jàngee ci kër Baye Cheikh Sey mi nekkoon Daaru Daaru Xudus alim boobu ci laa jànge fekk na nag sama baay moom tëraloon na ma ay téere yi tasawur si xaar na fi sag waaye nag jàngoom feq mu nga xam ne <coughs> ay risaala ci aju ak yu mel ne moom maa ngi ko jànge ci Baye Cheikh Sey gannaaw booba it njàng ma it tolloo naag may jàng fii ci jumaa ji ci Serigne As Jaxate mi ñu doon wax ci euh, waaw nag mi tolloog atum 72 73 yooyu 1972 1973 gannaaw ba it jàng naa ci sëñ Abibu moom it mel ni ay xalil ak yooyu ca foofu ci foofu laa ko doon jàngi boobu sax maa ngi ko bokkoon ku ñuy wax sëñ Moustapha Xasaayit moom da ko daa arrêté sax moom daa arrêté xalil euh, kon daal booba it sëñ As Jaxate it jàng naa ci moom naxu lu bëree bëree bëri naxu demee ne moom it moom ak <coughs> kutubul kii bi ak kii ay ay xiraatul musawar ak yooyu nga xam ne mooy. téere arab yi daal téere arab yi waaw mhm, mhm. <laughs> yooyu jàng ci boobu sax maag sëñ ku ñuy wax sëñ aska mi ak kii mhm, kii ka. mu tarka Ka mu Moutar Ka. waaw ak sëñ Xaadim Ka mag mag. sëñ Cheikh Boussa ñooñu ñoo fa bokkoon nekk booba sëñ <laughs> di ci sëñ As Jaxate yàlla daal doo la dogal nag bi ma eh, bi fi jógee daal uh-huh. eh, jàllatuma fen man Tuubaa rek laa laa naka laa nekk uh-huh. lu nekk ga ma nekkoon yaay wéen daal di fa uh-huh. jàngal xuraan waaye bi ma ñëwee Tuubaa it ci yëngutu yi ndax damay dégg lu bari ñoo xam ne sax dañ laa gën a xam ci posture sëñ Abdou Diom sëñ Saliou waaw kay waaw foofu itam <laughs> <laughs> ban ban jamono nga tàbbi ci loxoy sëñ Saliou xam nga man dama naa baaxoon ñaare euh, bi sëy bi xaalis nekkee moom moom bu nekkee ci dëkk bi rek ñaare julli bi mu ma fekk fi moom laa ko daa jullee yaa lu sëñ bi xaalis jógee maa ngi seet loolu bu bu ma bëgg rombee nana romb ko sëñ sëñ sëñ seer yi di gis mu julli ci mbaar mi ne ah lii kat ma romb doomi sëñ di kii de day xaw a doy waar fi moom di jullee fi moom di jullee fi moom moom ba miin ma ba mu yàgg am ko ci kër ne ci kër gi ne ma yeddu sëñ bi mel na ne bëggoon na nga di nga di ko liqaamal ma ne ko ah waaw loolu day eh, dëgg la sax waaye man sëñ bi damaa xam ay mbiram moom du ma ko jiitu ci dara mm-hmm. jekki-jekki di liqaamal du ma ko def ci biir kër gi mm-hmm. bien mu am benn eh, jullig fajar mm-hmm. mu am kum bokkal ne ca biir kooka daa ko man ma di ko toll ci bitti ci bitti ci mbaar mi moom mu ne ca biir ci kii ba nga xam ne da daa ubbi fenêtre bi rek nu nu ci tolloole mu jekki-jekki ubbi fenêtre bi kooka di bëgg a liqaam mu daal di koy def ni loxoom daal fekk maa ngi sës foofu mu daal di may may joxañ ma daal di liqaam bi ma liqaamee ba noppi moom dafa sëlmal rek xam naa ti naa wax ak moom daal ndax baax yaakaar naa ko boobu daal ne ana ki doon liqaam ma ne ko Abdou Diowum sëñ Samba Mint mu daal ne waaw yanaa bëgg nga toll foofu di ma liqaamal ndax yow yëg naa la julli gi ñor na la te mbir nag kum ñor lu ci aju yaa di def ba ma waxee loolu it yàlla dogal na ci tisbaar ja gàllankoor nañ ma ca loola. am na ku dikk taxaw fa mu fa ma waroon a ba ba kii kooka li xam. waxuma ca dara. am na sax ku ma wax ne ma yow sëñ bi daa bëggoon a dimbali. ndax man sëñ bi du dox du digal dara kenn di dox sama diggante moom ma ne ko nag nag dama am xalaat bu ma moo tax. sëñ bi ci boppam xa dana moo may gën a xam lan moo ma teel a xam. te it fii ñëpp fii daje fu ne fu ne dafay jóge di fa daje bu ma dee liqaam muy liqaam léegi dañ naa ah li xew ci jumaay Touba ji de léegi ci kër Sëñ Saliou de moom li xew ci Dakar ñoom la wala wala xew birëb sàngam ñoo ndax gis naa fa ñaar ñu yëkkati dellu di xam sëñ bi nga xam ne xam ne lépp naa ko bàyyi rek biñ ko defee léegi fekk màggal gaa ngi bëgg a jot màggal gi ñëw bi màggal gi dikkee ma bàyyi kooku rek mu xam bi màggal gi dikkee kooku li xam siwul sëñ bi amul genn julli gum julli siwul ci jàkka ji may it amul genn julli juma fi ñàkk julli ma li xamal ko loole mu jeex ñu ba ba bañ ba ci ginnaaw suba ci julli ci kii ba mu ginnaaw suba ci euh, biñ maanaam màggare ba ca ginnaaw suba sa mu julli si fajar bi bi mu julli see fajar euh, daa léegi astaxfirullah da da dafa dafa kii geel a geel a njëkk a def loolu ak gee léegi kooka dikk te yëgu moon na ñëw na man mu mu liqaam nu ma doo ma bàyyeeti fekk moom mu ngi ci biir man maa ci bitti mm. bin bàyyi nag ba ca fajar sa nag la ko sëñ ba yebal moom moomee mm-hmm. ne ko boo demee na ngeen julli te boo demee te sëñ bi jóg mu daal di def loola ban defee loola mu kooka téegal du mu dikk de julli moo li xam si tisbaar takkusaan timis gee bu gee ga jotee ak ah, di ah, gee ba ba fajar ba fajar jotaatee uh-huh. sëñ bi ànd ak moom ba ci jàkk ji mu ubbi volontaire bi may waajiri xaam mu ma suñu Abdou Diop ma ne ko mbàkke mbàkke mu ne boole xaamee <coughs> boole xaamee ba noppi mën ngaa jiite maa ngi ci topp fii ci gannaaw allahu akbar moom defee noonu nag kooku yàlla doon mi ngi woon ci sàpp si moom mi ngi ci sàpp si ci gannaaw ne léegi dama jiite maa ngi ciy topp ba defee noonu la kooka dikkaat ca tisbaar ja mhm. jam dikkoon ni ma mhm. sëñ bi nee nañ la bàyyi liqaam ginnaaw yoo waxtu ne yaa ngi teew ba mu defee noonu bu woowee nag mhm. ba ba dee julli bi fi julli maa ko jiite waaw mu a bàyyi nag léeg-léeg mu julli si léeg-léeg mat julli mu julli si ma loolu julli noonu daal la jàpp foofu nag moom daanaka boobu de moom sax dana dikk ba agsi ni ma bisimilah daal di daal dem ca ganaaw ma ndax ma xam ne daa bëgg ma jiite ma jiite ba nga xam ne am na bis yoo xam ne sax dama koy nekk ba mu yàgg mu daal ne ma mu dikk ne ma léegi léegi léegi de bis booy euh, buñ noddatee rek uh-huh. na nga julli ndax na ndax léegi bu fekkee danaa ciy ànd uh-huh. bu ñu nodd dana ma fekk uh-huh. te damay bañ nga julli waxtu yeex waaw <laughs> daane ma wala biana biana afdal taati salaatu naa fi ëbbalilu awxaati <laughs> daal topp ca loola yàlla dogal ba mu defee loola ba noppi nag mu daal di seet nag yi yow xeetu yooyu yëpp mu daan ma cay boole uhuh. daane sàlla weer wi de teg naa ko ci sa loxo ak yi ñuy yéene uhuh. teg naa ko ci sa loxo dima ci digloo ko dara dee ko dee ko dee ko yéene uhuh. boobu nag 92 la 1992 fanweeri at la ak léegi ba mu ba mu dee na mu ne ma it li daal di yow Modou Gueye. Modou Gueye mi ci nekkoon. kon loolu daanaka ci njëlbeenu xilaafa gi rek. waaw ah, njëlbeenu xilaafa gi rek la 92 rek tàmbali ba sax. daa daal di yow Modou Gueye ne ko léegi maye yi ñuy def ci kër gi. ak ku ñuy tuddi. ku doom ji ñu tuddi. ak armée la ñooñu fay taxaw Sala Sala Sala def naa teg naa ko ci loxoom na ko na koy def. nga xam ne yooyu yëpp ya yaa ko doon fi. waaw yëpp yaa ko doon def man bu dee sax fi mu sëñ Seex nii. sëñ Seex mi man bu dee kii ci armée la man da cee jëbal. macha allah waaw loolu ko def moom. Eh, faaw faaw maa koy def. waaw maa def. nga xam ne rek ñaari fan ñi nga xam ne muy àllarba ak alxames. ñi nga xam ne ajjuma yi la dem. yooyu rek jàngal nañ ko juróom-ñeent fukki kaamil ak juróom-ñeent waaw te ñaari kii yooyu rek. est-ce que loolu ay ay ay kii la ci. est-ce que est-ce que ah macha allah. loolu moom la yu xamutoon sax. waaw waaw ci taxawaay rek tax kay. waaw la tarkal la kon kon kon looloo sabab imaam sëñ Abdou Diop gi. ñu baree bari xamuñu woon. waaw te imaam gi. waaw imaama gi. waaw Serigne Saliou ci boppam moom moo. waaw ko def moom moom moom nga xam ne fi mu ne li mu julli ci ëpp na téeméeri yoon. ci nga xam ne moom daa def rek bu léegi mu dikk ne moom demal daal kii

macha allah loolu loolu tawfeex la moom loolu tawfeex ju rëy allah waaw léegi nag ginnaaw bi nag gisaat nañ yeneen i yeneen i jéego yoo xam ne itam yeneen taxawaay yoo xam ne amaat nga ko muy ci daare kaamil ji nekk ci biir jumaa ji nga xam ne dañ ci jàng alxuraan ginnaaw fajar ginnaaw jullik fajar ginnaaw jullik tisbaar ginnaaw jullik takkusaan di liggéey boo xam ne sëñ bi ca gànnaar la ko tàmbale woon ñu xam ne cosaan li ci gànnaar la woon amaloon nañ ci ab sax waaye seen dugg ci daare kaamil jooju moom itam la moom it dafa maa mos a woo woo ba mu ñëw mu dem ma ne damaa bëggoon daara kamil ju mag ji nga dugg ci. bu fekkee du xatal liggéey bi. ma ne ko man kay mbàcc liggéey bi lu mu gën a xat rek moo ma ci gënal ndax ba leneen man cee bañ cee mën a dugg. mu ne ma kon dugal naa la ci naa woo kii wax ko ko. njiit la wax ko ko. Mhm. boobu defe naa sëñ Abdou Samad. Eh, bu sama nekkoon. Mhm. waaw booba booba ak léegi nag war naa am ñaar fukki at xam naa ne. waaw waaw waaw. loolu loolu tam jamono jamono jamono yooyu la. waaw waaw moom moom moom xam naa ci ñaar fukki at rek moom moom dem naa ba ba sori nag. ba sori ci waaw dem nañ ci liggéey bi ba sori mu doon maa dugal ci loolu nga dem nañ ba am juróomi at wala juróom-benni at. liggéey bi may liggéey mu doon maa dugal ci loola. waaw mu doon maa dugal ci daari kaamil. taxawaay boobu ci daari kaamil ji gis na liggéey bu rëy la liggéey bu rëy la lool macha allah. Mm-hmm. waaye liggéey bu jafe la ndax mm-hmm. way gi mu laaj. Mm-hmm. gannaaw fajar gu uh-huh. boo ñëwee fekk muy taw muy uh-huh. naaj muy uh-huh. ngelaw. lu mën a xew rek. faaw loolu itam taxawaay itam boo ñu ci mënoon a. waaw ah, kay waaw loolu baax na ci lool ndax fi ne uh, béréb bi de lu bérébu. rek jàpp ni ñun ñu jàng alxuraan ak raw rek toog foofa loo xam ne sëñ bi ko sosoon ba mu nekkee ganaar uhuh. ànd ak loola ba ba néga ni uhuh. ba ba mel ne dafa dikk Touba mu taxu si fekk fekk si ko Touba uhuh. loolu liggéey ba ko cay taxaw war ngaa am nooy mel ak noo noo nooy nooy xalaat mooy da ngay fab liggéey bi teg ci sa kanam muy sa lépp loolu la ko nar a yàqal rek loola yàqu moom waaw ñu ñi am na ci ñoo xam ne nag da nga xam ni moom wóor na loolu foofa lañ nekk ñoom moo di lu mën a am buy doon taw bu doon naaj lu mën di def ak duñu am jenn soxla te te defuñ lii ba mu àgg ndax day day mbir moo xam ne wax sëñ bi sëñ bi si ginnaaw daanaka wax ne ba mu nekk njëriñ nag buñ fekk buñ xamoon sama kayam bi li muy jëriñ day li li li muy waaw sama bi li muy day lu lu lu jag ci géej gi géej gi wala jëri ji moo ko moo ko moo tey réew mi waaw waaw moo tey lépp tey réew daal moo tey lépp loolu da ko daa da ko daa wax uh-huh. te muy lu leer nañ ñi nga xam ne léegi fonk gi daal mooy li ci des lépp rek uh-huh. maanaam fonk rek fees yar nañ koy fonk daal xam ne buñ ci duggee léegi waxtaan ak dara doo ko def lu dul kaamil bi nekk noppi nga àgg nga nga kii ci dal ba ba tey nag am na salaatan tu tu najji naa joo xam ne bis bu danañ ko jàng junni yoon door a door a kii waaw ah, junni yoon ginnaaw ah, junni yoon waaw dañ ko jàng njëkk kaamil bi dañ koy séddoo nga xam ne loola it kii maan da ca nekk ndax ci jamono sëñ Fallu la lañ ko lañ ko defoon nga xam ne ci giifi buy lañ ko def ay giifi buy ba muy junni maanaam doomi buy yooyu ñu wàcc ba mu set ah, ba muy junni ah. léegi dañ ko def ci pot nag ah. muy junni ñu teg ko fee bu ñu amee ay fan wàññi ko ba xam junni bi mat naam am na lu ci wàññi ko mu déet hmm. ñu ko nga xam ne dañuy tibb tegale ci sa kanam eh. fi nag boo boo xëy seen suuf nga fekk ñu tibb teg ci kanam eh, man mas naa ko gis waaye xaw moo xam ne ca jamono suñu fa ngi ci biir eh, <laughs> muy salaatan tu najjinaa boobu waaw salaatan tu najjinaa boobu mm-hmm. julli yoon yi moom faaw dana am bisu set moom mm-hmm. barkal dañ noonu lañ mm-hmm. kaamil suba kaamil ginnaaw tisbaar am moom dara mënu ko fànq moom ndax aw nit ñi ñëw jàng ko moom lu lu mat a lu mat a bàyyi xel lu mat a bàyyi xel lu bëri umpale lu bëri umpale te boo téye réew mi waaw waaw dafa sori téye réew mi sori ndax dëgër gi moo ci ñi koy def it xam i xasida bi noppee ci kaamil bi rek diggante seen i toog ni seen waxaf yi xasida dañ koy gis ñu boole ko moom te xadaf waxaf yi dañ ko ci boole moom barkal muy liggéey bu am muy liggéey bu am solo bu mat a xel waaw itam bu taalibe yi war a xam la loolu taalibe yi war a xam la wax dëgg yàlla suñu taxaw mi bàyyi na ko lool lool jëlagul xëy na lépp la ko bàyyi woon xel moom <laughs> dëgg la am na ñu ciy def wax dëgg yàlla moom waaye dafa war a yaatu ba nit ñi xam bu baax a baax ñii taxawaay yi def ndax it yombut mu dee yombut waaye gëmal loolu rek yombut waaw jafe na jafe na dafa jafe lool ndax dara lu mu mën di doon da nga da nga ko def moom lu mën di doon da nga ko def tarkal la bokk bokk nga ci ñi ñu gën a seetlu ci sax ci way gën ci way nga xam ne dara daanaka xanaa lu mënta ñàkk nga xam ne wér di wala yooyu loolu moom fii de moom fii de fii de man Dakar laa jullee Tabaski koor yi waaye léegi fii laa jullee fajar fii laa jullee si waat tisbaar est-ce que <laughs> mbaaw gi laay jullee fa waaye fi laay fi laay ah, jiite foofu da nga jiite foofu sëñ Saaliw nu boole ñaar fukki at waa oh, grand mbaaw grand mbaaw leen ci <laughs> ah, ah, <laughs> tam ci liggéey bi la bokk waaw ci liggéey bi mooy moom boole woon waaw ak ñoom waaw masha Allah xam naa léegi ci beneen liggéey bi ci topp uh-huh. muy beneen taxawaay bi ci jumaa ji uh-huh. muy li ñu waxoon liñ junjoon ci njëlbeen gi muy ci wàllu weer wi waaw ndax ku nekk xam na Touba. cosaanul séentu weer ci dëkk bi. waaw na wax yu bari yoo xam ne jamono yi sëb laat nga xam ne ci la gënoon a mën a tasaaroo. ndax ci la nit ñi gën a tasaaroo ci dëkk yi. te it fu murit mën a nekk. Ah. day déglu ndigalul kilifa gi. waaw surtout ci wàllu weer. ci wàllu woor ak wor yi wala yeneen événement yi. Ah, ah. Euh, loolu nag faaw tam ñu ñëw ci cosaan li. Mm-hmm. ndax taafeer mbaa fanweer te sëñ bi ci sëñ bu mag bi sëñ sëñ sëñ bi sax ci sëñ bi jamonoy sëñ bi waaw waaw waaw histoire mel noonu jàpp naa amoon na fi amoon na ci jamonoy bi Euh, loola nag di baamuwaat di baamuwaat ba ci jamonoy Sëñ Blaat. Ah, ok Sëñ Blaat lu mel noonu mu fàttali ñu la jamonoy sëñ ba. Ah, ok la ñu delluwaat ca loola. la ñu delluwaat waaw mooy loola yaakaar naa ne loola bokk na ci li cosaanul nag. ñu dem ba jamonoy sëñ Saliou ñu samp commission boo xam ne dañuy séentu weer di ki ak léegi boo mënoon a ñëwal ci historique bi. waaw ah, maanaam cosaanul cosaanul weer wi. waaw ak jafe-jafe yi ci amoon. jamonoy sëñ baax yooyu xam naa ne dañ xam ba xam taxawaay yi ngeen ciy def. waaw waaw fu fu fu mu bàyyi. <laughs> nga weer bi moom ni mu defee ba ginnaaw ca jamono Sëñ Tuubaa la tàmbali woon am mel na lu am ay kéegi yooyu uh-huh. ndax am na bis boo xam ne dana woon suba bokkut ci ramadan te teewut am na ñu ko wooroon uh-huh. li ñu gis weer la te mu ne du weer uh-huh. waaw nga ña ko wooroon dañoo wax na ndax dañoo dem dem mu tëy feeñ loola it mën naa am fi ne nii nag waaye loola noonu liñ ca xam noonu danañ woon léegi lay bàyyi nii bàyyi naa leen seen coowal weer waaye yéen boobu taa weer wala fan weer loola nag ba tey moom la ñuy doxal doxal nii uh-huh. man nag sëñ bi ba tey at mi ñoo wax ci moom la ma woo ni ma léegi damaa bëgg weer nga di ko nga di ko séntu uh-huh. loo ci xam rek ko uh-huh. muy muy muy 92 ji ma wax nga xam ne bu baax léegi fan weeri at la yàlla dogal na it eh, booba jamono jooju it taxawaay bu ma ci taxawoon tax na nanguwul kenn bokk ci far oh. ab commission daaw ko nangu uh-huh. ku sa dikk waaw nga xam ne ko dikk ne ko dama bëgg ndàngam danaa i man de li ma bëggoon rek ngeen dem uh-huh. defee ngeen ciy waxtaan ak moom lu ngeen ci xam wax ko bu ko defee mu doon bañ ba ak rax am ci keneen waxee ne waaw uh-huh. Eh, nga xam ne ci loolu lañ loolu lañ nekk ba kii daal nga xam ne Euh, moom weer week lii da ma wax na sax waxtu woo gisee euh, waxtu woo ci xamee dara rek jërul ñëw fi man waaye du tee loolu nag lu ma ci xamit nag faaw ma ñëw ci ñëw ba moom waaw euh, booba booba ñu ne sëñ Saliou joxe responsabilité bi nga xam ne yow dong la waaye teewul am na ñoo ci daan lëkkaloon ah, waaw dama am ay correspondant ci mboolem kii ne fi ay kii di daa gudd réeg mm. nanga dëkk yu sori yooyu yëpp fii ne am naa fa ñoo xam ne dama leen di woo ah. laaj leen ba xam ngoonde si seen duweer bi kat na ngeen xool ba xam nu mu demee naa mm. bu ko defee ñoo xam lay doon waaw ñu ma xam lay xam lay doon mm-hmm. ñu ñu kii ñoo xam ne ñoo ne dama yem sax ah. ci nga woo ma ne ma léegi gis naa weer wi wala dara mm-hmm. bis boo ma woowoon ne ma gis naa weer wi may xool ba ba xam ne yow mi yaa ma woo ma jékki mu yàgg ma woowaat la waaw yow euh, weer bi moo loo ci xam nga ne ma yaa ma maa la woon léegi nangam ma xam ne yow wax ah. waaw dama xam ne niru ko baat wala ah. Ah. nga xam ne léegi boo boo dajalee nag information yooyu xabaar yi nag kay saytu ko waaw gëstu ba xam am ci lu wér waaw doog a delluwaat sëñ waaw balaa am noo dem ci sëñ bi moom uh-huh. dañuy dem ba xam ci lu wér a wér a nga xam ne yow da dem nga dem nga ba am juróomi barab wala juróom benn barab yoo xam ne uh-huh. wax nañ la lu wér ni gis nañ ko wala nangam uh-huh. léeg sax ñu nit ñu yéex def déclaration mu woowaat kër sëñ ba mm-hmm. am na kilifa yu ko def sax woowaat kër sëñ bi wax leen ko mm-hmm. am na bo bu bu weeru bi weeru weesu rek nga defoon xam ne sëñ bi mujj woo mm-hmm. nee na ñun kat diw wax nañ ko ñu ne ko noonu de waxoon nañ ko waaye doon dajale kii rek mu ne ah loolu baax na ko nu door caa ànd e, eggale eggale loola waaye duñ ci jëli su benn suñu yëfi bopp lu xam maanaa du sëñ bi du dam cay def du ca ne sëñ bi day jekki-jekki rek digle ne weer wi nañ feeñ na nangam mel ci coobari boppam ñun ñi muy liggéey loo day seet ba diglu luñ uh-huh. mu door a jëpp jàpp ca uh-huh. bu nit ñi koy jàppee ne ndigal la du ndigal du ndigalul kese du ndigal waaw sëñ bi daa jiite fii rek uh-huh. léegi léegi bi ñu koy jiitee bu noppi nag mu wax ne lii am na ñu topp loola lu am solo lu am solo lu mat a leeral la waaw lu mat a leeral la lu lu lu lu am am solo la léegi nag mu mel ne hmm. jamonoy sëñ Saliou ni nga ko waxee. yow la ci sëñ bi doon kii nga nga am ay correspondance di dajale information yi. ñu dem ba mu yàgg nag ñu yaatal ko. waaw léegi bi ñu ko yaatal jamono El Hadj Baara. waaw jamono El Hadj Baara daal. lañ wax ne nañ ko yaatal nag. te yaatal bi sax wàññiwul dara nag. day tax rek nit ñi gën a kii fenn fu ne kii. biñ ko yaatalee nag def ko lu man ñaar fukki nit waaw waaw moom bari na moom wala moom suñu as jaxate mi la ci defoon nag ñu bari daal waaye nag euh, dañuy dem ba mu yàgg nit ñi xam naa ñàkk jot gi di am oh, ndax oh. léegi man fee may bu ñu koy séentu daanaka ñu néew fay teew waaw waaw day mujj nag ñu néew ñu néew waaw ah, teewul fa ñu man la ñuy liggéey waaw ah. te dafa am lu metti ci la loolu ci la ci ne loo xam ne oh. man man dama ci dama a yenn lépp bu ci as erreur amee rek yow lañ yenn lépp dëgg la waaw wota wota wota waaw dëgg la <laughs> waaye loolu du ca du ca dara moom waaw amul benn kii moom koy liggéey bi macha allah sax daanaka <laughs> heure moom daanaka ndax léegi murid yi fépp lañ nekk ah, te xam nañ xam nañ ah, a am di leen a jot waaw nga xam ne waxtu wax bu jotee da nga fexe ba sa téléphone di disponible ku la woo mën laa jot nga mën a gëstu diw la waaw waaw ndax léegi-léegi nit dana woote ci ab dëkk koo xam ne du ngeen ko xam uh-huh. moom da am na seen numéro uh-huh. woo leen ne ah man de gis naa weeri uh-huh. yéen bu boobaa te maa ngi dëkk sàngam parce que maa ngi Tàmba gis naa weeri ah te yéen xamu leen ko yéen ngeen gëstu yéen saytu ngeen def xam nga lii dal nañu ci ci boobu rek bi bi ne léegi am na ñu ko gis ndar uh-huh. ah, nga xam ne loolu commission bi Dakar bi ñoo ne ko wax am ñu ko gis béréb sàngam am ñu ko gis uh-huh. béréb sàngam uh-huh. waaye tur yooyu ñuy wax man ñun xamuñ ko fekk na man xam naa ku ñuy wax Mass Seck mu nekkoon Serigne Saliou gi doon ko pëstéefu ma woo ko ne ko sëñ Mass mu ne ma ne ko man day dama euh, dégg ñu ne euh, weer wi feeñ na ndar léegi yow te ndar nga dëkk yow xanaa mu ne ma man nag fi mu nekkuma ndar waaye moom ma nekk fa ñooyam ndax xam naa fa ñoo xam ne bu leen woo danañ wax lu wér léegi daal di woote ba ca kanam mu woowaat ma ne ma waaw loolu de am na léegi de gis naa ñoo xam ne day ñoom a gën ci sama bopp léegi nag ñoom ne nañ ci géej gi lañ demoon waaye gis nañ ko uh-huh. diw ak diw ak diw ma ne ah, loolu laa ci bëggoon a xam waaw nga xam ne maanaam fu <laughs> ñu wax rek du ñàkk ku ma fa xam moom faa ma lu woote foofu uh-huh. du ma weddi ñee nag uh-huh. ñoo ma wax gën naa la ñuy wax waaye nag ginnaaw ma ñee ñu wax xawma leen naa naa naa wut foofu ñu ma xam boole ca loola waaw tubaab tubaab nee na <laughs> saytu dàqul kóolute déedéet waaw <laughs> saytu dàqul ne nit ki da nga ko wóoluwul déedéet nit ki da ko <laughs> déedéet dàq waaw loolu la loolu am solo la waaw kon daal mu war a leer ci bopp nit ñi de waaw commission bi di tuub du tuubaa rek la toog xool soow jumaa ji waaw buñ gisee weer yi daa ne gis nañ ko wax ko sëñ bi mu joxe ndigal buñ gisul weer yi fatu waaye dañuy am nañ fu ne murit bu leen yu leen fa nekkal leeral yoo xam dañ dajale information yi loolu tam lu mat a lu mat a leeral la ndax ñu bari dañu jàpp ne rek ci joxe kenn sax waaw sëñ Modou Mbacke moom sëñ Abibou waaw daa doon ko farlu ci loola ba nga xam ne fa bàkkeel gëm ne mhm. day mel ne dafay toppatoo loola bu baax a baax a baax di ñu jox information mhm. ba nga xam ne sëñ bi da koo miin ci loolu ba ne man sëñ Modou bu waxatee rek yow jërul ngay dikk fi man est-ce que sëñ Modou Mbacke man dana ma waxatee mhm. jërul ngay dikk fi man mën ngaa dem yéene ko waaw ci na boobu oh, tarka waaw <laughs> loolu loolu loolu liggéey bu am solo la <laughs> léegi nag mu des <laughs> uh-huh. seen diggante ak waa commission bu mag bi waaw muy commission nationale de croissance linéaire ñooñu ah. di commission boo xam ne. xëy na mooy saytu seentu weer wi. ci Sénégal. donc am na yeneen commission. waaw xëy na boobu moo ci gën a mag. te moo ci officiel daal moom la état bi di liggéeyal. ñooñu itam mu mel na ay jamono amoon nañ ay jéego yu ñu doon dox diggante seen ñoom ak yeneen këri diine yi nga xam dañuy faral di seentu weer. ndax. jéego yooyu ñu doon dox si diggante këri diine yi. ñu ñoom mas nañ leen a ci seen i taxawaay. di ñu ngeen di jëflantee. ndax am na membre yoo xam ne ci seen commission bi. yu yu nekk foofa. ñoo leen fa wala. waaw waaw xam nga loolu. naka jëkk suñu seet yi moom day bari yi muy seetlu. di ko di ko kii commission bi moom. ba ba ren jii rek dikk nañ fi euh, ngir euh, bëgg jaxasoo membre yi ak yooyu. waaye dafa mel ne lu muy lu muy séntu weer. suñ bi daleen cee leeraloon bañ ko bañ bañ dikkee fii ne dañoo bëgg léegi def commission boo xam ne dañuy toog fa rajo ba léegi bu ko defee kenn ku ne am fukk la toogal lu lu lu luñ luñ ci xam euh, defandoo ko ndax juyoo gi bañ am mhm. sëñ bi dana leen loolu lépp day am na lu ko gën a gaaw ginnaaw yéen yéen nga foofa di séntu mhm. defe naa ku ne fa nga nekk nga séentoo fa mhm. ginnaaw foofa nga dëkk bu ko defee bu ngeen gisandoo ngeen jokkoo xamat ku ne xam ne gis gis bi am na defe naa mooy gën a noppali ku ne Ndakaaru di seen dootu wala dara du yomb waaw bu ko noonu loolee nit ba tey noonu dox ñoom it nag danañ am sax léeg-léeg euh, ñu dikk fii léeg-léeg gis naa fi ku ñu wax am imaam Sakho ñëw fi fekk si jotaay beeg yooyu mmh, waaye loolu rek dafa doy mmh. ginnaaw ginnaaw léegi jokkoo gi moom fu ne mën na faa am bu nekkee fii di séntu mmh. ñu nekk fee di séntu ba ñu umpante ñuy wax naan gis naan wala gisuñu léegi bu luñ ca xam def ko muy leen moo gën a gaaw commission buy dem toog Dakar te ñu war a séntu weer Touba. waaw noonu lañ ko jàppee ñoom ñoom ñu ngaa commission Dakar ba uh-huh. ñun ñun xam dañ leen ko yëgal uh-huh. nga xam ne daal waaye jokkoo gi moom mi ngi am jokkoo gi mi ngi am bu baax moom nga xam ne ñoom fi ne fi ne rek dogu nañ ci ñoom it sax bala ñoo déclaré uh-huh. Touba day day wax lu wér Touba da dañuy jokkoo Touba ba Touba wax leen lu wér waaw dañuy xaar ba am information Touba am information ndax itam Touba tam dafa am impact bu mag ci mbirum sëdd moo tax moo tax waaw xam naa xam naa ña ngi koy def Tiwaawan it nag ñu ngi diglu Tiwaawan xëy na waaye fii moom bala ñoo def dara <laughs> danañ diglu loolu dana sàmm bu baax a baax benn jullit ñi moom am na am na ci solo lool lool ndax it loolu sëñ bi loolu ciy bëgg lool maanaam ñoom ginnaaw ñoom dañuy séentu bëgg buñ kéexee nuy nuy séentu uh-huh. léegi ni ñuy bëgg a réeróo rek uh-huh. eh, dara bañaa bañ bañ mën naa bañ a dox ci diggante bi uh-huh. waaye noonu lu ñu xam wax leen lu ñu xam wax nu mu daa bu ko dee mu yomb lool waaw waaw waaye jafe-jafe yi moom bëriwu ci déedéet bëriwu ci daanaka amu ci moom waaw wax dëgg yàlla jafe-jafe amu ci moom waaw nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent daal bu jotee ñi ci bokk ci commission bi te disponible ñëpp danañ ñëw ah, moom ci sow jumaa ji waaw toog waaw taal téléphone yi toog di dé déglu xabaar yi ah, di séentu ah, waaw buñu amee xabaar bu wér am ca beneen am ca beneen am ca beneen ba saytu ko ba mbër ah. ñu dajale doog doog ne sëñ bi ah. am nañ xabaar yi waaw waaw am nañ xabaar yi waaw sëñ bi joxe ndigal soxna Jóob sëñ bi joxe ndigal waaw sëñ bi sax am na bis boo xam ne uh-huh. danoo jekki ba mu guddi te gisuñ gisuñu weer bi uh-huh. ñu déclaré ñu wax ko ko mu ne mën nañoo déclaré ne feeñu uh-huh. bañ defee loolu ba tegaat ca lu ma vingt minutes moom ci boppam moo teel moo ma téléphoné boppam. Oh, moo téléphoné. waaw loolu moom euh, weer wi kat gis nañu ko doy ñu ne gis nañ ko. est que waaw. Uh-huh. gis nañu ñu ko doy ñoo xam ne gis nañ ko. Uh-huh. léegi kon mën nañu daa taalib dimbal dimbal mu ne ko ah sëñ bi ko daanaka jël ñu dimbal kenn. Ah, ah, yow kay ah. boo gisee ko doy rek jël na amatul ñu ko waaw xam naa ko sax waaye teewul na nit boo ko liggéey loo dara. Uh-huh. boo demee ba gis teel ak coppiku. da nga ko war a leeral muy Cheikh Mamadou Moutakha moom moom si Mamadou Moutakha Diop. macha loolu la. léegi nag ba ban ban kii nga jàpp ne na ko cee mën a dolli daal xëy na lu baax lu baax waaye loo jàpp ne warees na ko gën a mën a ci liggéey bi ba mu gën a woyof gën gën a. moom moom kii bi waaw waaw waaw xam naa am na ñoo xam ne nag ñu ngi ñoom ci machine ñuy jëfandikoo yooyu nangam nangam. waaw naa ci la. waaw waaw kenn du ci du sukkandiku. waaye nag du waaye nag du tee da ci gis mandarga yoo xam ne danañ da da da ko topp ay yoon muy am. Uh-huh. waaye teewul nag gis gi rek ñun daan la la ñuy kii duñu uh-huh. kër ci ko kii bi waaye nag teewul nag uh-huh. mën ga cee mën nga cee jàpp nag ci ci wet googu. ngir xam ne machine la boo xam ne daal a mën a xóotal sa gëstu waaw ndax dañu ne war naa mën a feeñ tey. waaw yow da nga ci. kay jël ko seen baax ak jéem a jéem a seen baax mu feeñ ak fu ma laal fa ba xam. dëgg la dëgg la waaw dëgg la dëgg la waaw dëgg la macha allah léegi nga xam ne nag ab beneen la boo xam ne uh-huh. xëy na bokkut ak commission yi nga nekk ci réew mi uh-huh. ñoom ñu leen di wooye ay astronome uh-huh. maanaam ñoo xam ne ilmu nujum lañ jàng maanaam lu aju ci wàllu biddiw ak wàllu weer nga xam ne ñoom léegi sax Euh, weer wi des ñetti fan uh-huh. masalan euh, fii ak suba rek fi ne dañ tàmbali ne uh-huh. ki bi sàngam lay doon uh-huh. ndax weer wi vitesse bi muy daw bis sàngam dana mën a feeñ des na ko mën a gis wala bis sàngam des ko mën a gis ñooñu kuréel googu ndax kenn ñenn ci ñoom mosuñu leen a jéem a contacter ngir liggéey ak yéen wala déedéet man mosuma cee kii man nag bëgg naa cee contacter ñenn sax waaw ndax li ma la wax rek moom ginnaaw noonu dañuy dañuy séntu fee gisoo doo kii la la lañ lay mën a dimbali dimbali ngay gis ci di uh-huh. a uh-huh. a am wala da am da lu ca uh-huh. da nga da nga ci xamee ne eh, lu lu mën a am la ndax dañ naa li ñuy tuddee jàpp weer nde weer bi sax kenn jàppu waaye li ñu ko tudd ci wala sax jàpp weer bi day am fu muy duggee ah. ba ba kii rek léegi dañ naa waxtu sàngam danañ ko def mu aw yoon ca lool noonu ñu gisee loolu nag mën nañ ko gisee ah, nii la waaye te xam-xam lay sànni gërës ko gërës ko sànni gërës ko sànni ni ñu nangule docteur bi xam-xam xam-xam ko nangule ay kii moom da nañu la nangul ne la am xam-xam bu ñuy jàngal xam-xam bu alxuraan saxal na ko waaw kay mu ngoog mu ngoog alxuraan saxal na ko waaw xam nga soo moo di ruyet yi waxtu loolu ruyet yi fa in xumma jooju nga wax fa in xumma mooy bu duggee ci xam-xam bi rek ngoog jeex na tag loolu bu duggee ci liir yi ba mënu si koo gis yéen ci loolu tey bi sa lépp de mën naa feeñ waaye waaye soo ko yow yow jàppante na nga gis dëgg muy lu am solo ndax it xadis kuréel bi jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ko gisoon ba mu ñëwee da ko ne déet dem leen fa dem leen yéen ngeen waaw kon mooy mooy boobu nga mi defoon na ko ko laaj mu ne ko yéen <laughs> gis ñi ko la toorkal la muy liggéey bu am solo boo xam ne euh, wax dëgg yàlla lu umpoon waa euh, mbokki taalibe yi la waaw waa réew mi ump mbokki ndax <laughs> doxalin wi xamuñ ko ku toog rek daan lu waa Tuubaa wax lu waa Touba wax bu ko defee sëñ Abdou Diop dong la ñuy dégg xamuñu ne sëñ Abdou Diop nii la koy liggéeyee nii la amee ay correspondance nii la ñuy dajalee xibaar yi di ko saytu buñ ko saytoo ba noppi loolu lañ koy jébbali sëriñ bi ne ko am nañ xabaar yu wér ci ne diw ak diw ñu xam la nag sëñ bi joxe ndigal loolu nag dafa loolu moom da ci dafa dafa am solo bare bari da leen a umpoon waaw <laughs> mu doon loolu am na am na bis boo xam ne defe naa ñi ko gis ci bëriwul waaye uh-huh. sëñ Cheikh Kajoor mu Mbàkke Kajoor moom a téléphoné wax ma ko moom moom laa xam ne téléphoné kër sëñ bi it mu tekkee ba mu yàgg ne wut ñu ma ci dooleel la la téléphoné bi sëñ ñu ne ma ah kooku ko ah kay doy na yëmutu am na boo xam ne sëñ gis yéni si ñu jigéen yi moom it moo ko gis mm. moom ma wax ko doog mu ne ma déet sëñ ko woon ko mbooloo <laughs> ko gis nañ ko fi neen waaw tarkal <laughs> liggéey bu am solo boo xam ne euh, ndimbalu sëriñ bi it mi ci ndax <laughs> kenn kenn yaakaaru ci njuumte sax ndax ndax ko koy liggéey ni ñu ko nosee uh-huh. njuumte du ci yomb njuumte du ci yomb ñi ci ciy liggéey ñu ci baree bari am nañ xërub mën cee mën cee mën cee gis man koo saytu bay joxe ay xibaar yu wér bay xibaar yu wér waaw ndax mbirum weer dafa xaw a dafa xaw a doy waar tax sax fi ne dana am kilifa yoo xam sax dañ la ci xaw a mere tuuti dañuy hmm. da ngaa wékku ci kii bi rek waaw waaw ci ah, waaw te fekk du doon loolu fekk na yow da ngay gëstu da nga gëstu gëstu lool door hmm. am kii doog a door a <laughs> doog a am kii door a sañ a wax leen moom hmm. da ngaa sañ a wax moom dana da nga da nga da nga dem ba xam ci lu lu leer nañ moom waaw waaw ci xew a gën a doy waar moom ndax ndax koor dafa doy waar woor bisu korité waaw waaw doo fi ne erreur yëpp ci koor la yam koor waaw koor la la gën a gën a jafe-jafe dégg te day mel ne weer ko day naqaree gis ci loolu yi uh-huh. diggante koor ak koor ak yooyu uh-huh, uh-huh. day mel ni foofu la rek problème bi di di di li ma ta leeral itam mooy ñu bari ji gàtt xel mhm. dañuy jàpp ne mhm. commission bi mhm. koor koor yi tabaski dañuy daje maanaam yeneen weer yi ci des <laughs> dégg nga duñu daje waaw te yeneen weer yooyu buñ ko joxul ak bi ñu ko a jox ah, doo gis njuumte mën na la caa mu weneen weer mu ngoog loolu tam fi ne lu mat a bàyyi xel loolu la ñuy def nag ñu xam ne ñu ne loolu yëpp lañu weer lañu jamale fi ne noonu lañ jamale yëpp ñaar fukk ko séentu rek toog di ko séentu boobu boobu ba séntu bi weesu mhm. ñu de ñu déclaré mu jeex bu feeñee ñu ne feeñ ne bu feeñu ne feeñ ñu ne boolem fukki weer ak ñaar yi yëpp noonu lañ leen di def tabarkalla tabarkalla loolu loolu loolu tam lu lu lu lu lu am solo la <laughs> kon xam naa sëñ bi dañu ngi ci jotul waxtaan wi di sant bu baax a baax ci jataay bi jataay bi gàtt na xam naa lu ma ci bëggoon a kii uh-huh. ci diggante sama diggante sëñ bi ci foofu uh-huh. maanaam euh, daa daa am yeneen yu ma doon yu ma daa def loo yoo xam ne uh-huh. ñoom waa kër ci ñu bokk ci jumaa yi sax bokk ci loolu tax ma bokk ci kii di Euh, dafa tànnoon aw nit maanaam ñoo xam ne du fukki nit lañ ak benn ñoom ñoom ñoom la doon yóbbu xel koom mm. maanaam ba muy daloo xel koom mm. noonu la fa yebaloon mm. loolu nag sëñ Afi Buso mii ci la waaw mm-hmm. sëñ sëñ Baara Buso ci la mm-hmm. sëñ Moustapha Xasaay ci la mm-hmm. sëñ Mat Jaañ mi nekkoon Daara Kamil ci la sëñ sëñ euh, dan Buso sëñ Mamadou ci la bokk sëñ euh, kii Boussa doomu sëñ Moulay ji euh, euh, léegi laa ko mën a doon tudd waaw ak sëñ fukki ni daal la ñoom fukki la ñoom ak sëñ Ahmed Guèye uh-huh. sëñ Jiilim uh-huh. sëñ Abdoulaat ak uh-huh. ñoom la ne woon ngeen dem xelam xel koom léegi mun ma ko nga xam ne keroog ñuy dem léegi moog jant bii la bi ma jant bii mu ne bu ngeen demee bu ngeen ko bu ngeen demee bu bu feeñee ngeen fa uh, fanaan fa muy muy muy sama muy daloo gi bu ko def ma xëyee dinaa ñëw def daa dikk kii fekk si ci loola xam ne sañcub xel koom moom yéen la ko ah, waaw nga xam ne ba tey seeni tur moom sëñ Afi mi ci la ak sëñ sëñ Bara Bousso barkalla waaw loolu loolu tawfeex mag a mag a mag waaw waaw tawfeex moom moom daa am solo <laughs> moom daa am solo waaw jërëjëf nañ bu baax a baax ci jeetaay bi waaw yaakaar naa tey leeral nañ lu bare bare bare ak it ñu bare bare sëñ Abdou Diop mi làqu woon nga xam dañ daan dégg kaddu gi rek euh, suñu mbokk njaay la buñ ne suba bisub koor la <laughs> euh, ñu leer di tàmbali <laughs> waaye ku man ji xam naa nag ku man ji moom doo leen ko man gi de waaye man gars yi dañoo mën bu noppi te fan ah loolu moom a jaaxal jaay moom mën nañ mën nañoo mën nañoo weer weer boobu jeex. waaw waaye benn fan benn fan boo waxee rek ñu daal ndax xam nga dañoo mën a woorandoo. <laughs> waaye mënuñoo dara di di woor rek <laughs> jërëjëf Diop baax a baax jotaay bi yàlla suñu borom yàggal taxawaay bi te li ngeen di liggéey ci barab bi muy liggéey yëpp rek yàlla na ngeen ci dajee ngërëmu sëriñ bi ngeen di sàkku waaw sant nañ baax ci xataayu waxtu wi nag tax ndax yaa ngi jóge ci daari kaamil rek daal di ñëw ci jotaay bi ba te léegi timis jot kon kon kon ñu ngi sant bu baax a baax di gën a di gën a feddali kóllëre gi ah. di itam di gën a euh, tàllal loxo yi ah. ndaw yi liggéey ah. day baax lool mag ñu mel ni yéen am histoire am jaar-jaar nekk seen kanam ñu leen di xool di leen roy kon yàlla na suñu borom yàggal taxawaay bu baax a baax jërëjëf sant nañ baax a baax waaye euh, yéen nag yéen maa ngi leen sant bu baax a baax a baax ndax liggéey bii may def kat mm-hmm. Euh, de euh, bu may séntu weer wi. Mhm. Euh, defe naa ne ma ko xamee ngeen ko xamee da ngeen di toog. yi mhm. ma ko séntule. Mhm. di ko def ci ay vidéo di ko def yëpp ba mu mën a tasaaroo. te yàgg nañ ci lool. ndax seetlu naa ne sax suñu affaire mi am na bis boo xam ne. mu di ma wax. yàgg na booba ba muy door a tàmbali ci sëñ Saliou rek dama ma waa moo xaddamala xi ma dañoo bëggoon a defar lampi jumaa ji defar ndax eh, bëgg ma wax ma ko sëñ bi waaye ba ko waxee mu ne am nañ kilifa ñi di tàggoo mm-hmm. mooy mooy ni ngeen koy defar ni ngeen koy defaraate rek kon nag a a a ñoon <laughs> seetaan di ñu topp ci ci seen jataay bii nga xam ne mooy Yaw la tey jii jàpp naa ne bokk na ci jataay yi ëpp solo ndax am na ku làqu woon ku daan liggéey liggéey bu rëy koo xam ne tey feeñal nañ ko feeñal te ab liggéeyam waxtaane lu baree bari ci liggéeyam loo xam ne umpoon na ñu baree bari waaye waxtaan lu baree bari nag ci commission weer wi nga xam ne ñu bari yittewoo nañ ko te xamuñu woon nu muy doxee ci Touba te ak euh, transparence bi ci am muy kóolte gi ci am saytu bi ci am leeral yooyu mu ci def muy al imam Serigne Abdou Diop euh, moom lañ ci àndaloon tey kon di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox daje euh, weer wii di ñëw incha allah ci beneen jataay ci geneen gan wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi